brave kii nii Nantes la nekk France Nantes. ni xam nga lii jamais bi nant la nekk fa la daanoo Nantes France. Nantes boo koy gis ngeen lii lu yéeme la maa ngi jàkkaarloog benn jinne jaan ak jinne bi daan. c'est grave ah. grave ñoo ngi jàkkaarloog benn jinne ci néeg bi ak jinne bi daanu France Nantes instant bi Ousmane def na ko appel vidéo maa ngi jàkkaarloo jinne bi nekk France ak jinne bi dugg sama néeg nii daanu kon instant bi maa ngi ci diggante Sénégal France mbokk yéen a ngi gis lii lu yéeme la lu doy la gis ngeen ko jinne bi hé jàkkaarloo ak man nga xool ma gis nga ko ba tey mënuma xool gis nga ko noonu moo nekk noonu gis nga ko xam nga ne lii lu yéeme la lii suñu borom rek moo ko mën maa ngi toog nii jàkkaarloo kii daanu suma kanam dugg dafa dugg rek daanu gis nga ko dafa dugg rek daano ak kii nekk Paris France nant gis nga ko kooku instant bi ma na ut ndox na ut ndox us kii magay na def ndox def ci Thierno Moule Sow ñetti yoon nga xëpp ko ko waaw def ci nga xëpp ko ko nga xëpp ko ko mbokk yi lii lu yéeme la lu doywaar la jinné bi nekk nant France da nga koy xëpp c'est grave na wàccee vidéo bi xam nga ne lii suñu boroom rek moo mën a maye lii na jàkkaarloo ak man allo oui na na jàkkaarloo ak man he yow la kan yow la he yow la kan yow la kan jàkkaarloo ak man he gis nga ko instant bi jinne baa ngi foofu gis nga ko pour mu xool ma problème la gis nga ko magay moo ngi jël bëti pour mu xool ma mais pour mu xool mu problème la jàkkaarloo ak man hé mbokk yi gis ngeen lii lu yéeme la lu doy waar la ba tey pour mu xool mu problème la pour mu xool ci caméra bi pour mu xool ci portable bi problème la gis nga ko nu muy def bëti gis nga ko gis nga ko nu muy def bëti jàkkaarloo ak man gis nga ko day dumoyu gis nga ko gis nga ko hé hé hee mbokk yi gis ngeen ko gis ngeen pour mu xool ma problème la instant bi jinne baa ngi foofu instant bi jinne baa ngi noonu jinne baa ngi noonu gis nga ko gis nga ko jinne baa ngi noonu gis nga ko moo ngi fële ca nant ca France nant gis nga ko gis nga ko daanu na gis nga ko pour mu xool ma problème la mbokk yi xam ngeen ne lii lu doy waar la lu yéeme la lii yépp nag suñu boroom la macha allah. gis nga ko pour mu xool ma problème la c'est grave. faw faw lu fun naange amaru yow hir naange inna laaha analaha billi baadi bashiron jinna monokobi tolotege talatege allahn kan tan annabi kan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkod jinna kiti saya boloya allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna so jinna koroyanna nabiyanna nabindure durete sojinna so sojinna sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi sama ruushi samsi sama ruushi jinna mono ko bi gisinga ko batay nangol hoolfi gisinga ko he e saabi ñongi cennanto france gisinga ko gisinga ko gisinga ko gisinga gisinga gisinga bati gis nga xam nga ne instant bi jinne bi moo nekk fii gis nga mbokk yi yéen a ngi gis c'est grave <laughs> commentaire lan ngeen di wax yéen reporter reporter xool ko xool ko xool ko xool ko <laughs> pour mu xool Thierno Moule dee <laughs> c'est grave mbokku jullit yi mbokku taalibe yi gis nga ko instant bi jinne baa ngi fi gis nga ko pour mu xool ma problème la duma ma mun a xool du ma mun a xool gis nga ko eh eh eh gis nga ko du ma mun a xool gis nga ko gis nga ko gis nga ko du ma mun a xool eh yow la kan c'est qui gis nga ko du ma du ma xool <laughs> ca grave ah waaw yéeme na Ousmane lii yëpp suñu boroom la ndeysaan allahu waaw moo ngi noonu ca Nantes ca France Paris France nant man maa ngi fii ci Cambérène 1 ci booru terrain jamono fii ci clinique bi jàkkaarloog benn jinne waaw di jëflante ak jinne bii di jëflante ak jinne bu nekk France li nag yàlla rek la mbirum suñ borom la mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gis ngeen gis nga pour mu xool ma problème la xool xool ma ak naan ak dee la yemale gis nga ko ki mu nekk moo ngi koy jàppale bës ko pour mu xool ma mais dee duma xool su may xool di lakk gis nga ko mbokk yi yéen a ngi gis lii TMS gis nga nee na wëy yaay TMS <laughs> TV moo leen di indi lii macha allah kon mbokk yi yéen ñu suivre sur la TMS TV fi mu nii nekk une heure jot na ba passé ñaar fukki simili ak ñaar une heure vingt deux ngeen gis ni lii c'est du jamais vu lu yéeme la euh, jàpp jinne fële ca France ca Nantes euh, jàkkaarloo aussi jinne fii ci Ndakaaru ci Cambérène 1 euh, fii ci kër xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow kon defe naa ni lii may suñu borom la ngeen gis ba léegi jinne bi nanguwul ñemewul xool le xalif général ba léegi yéen a ñuy suivre sur la TMS TV lii suñu borom rek la kon dangeen di gis ni euh, jinne euh, nekk na lu doy waar nekk na lu yéeme day wane que ni rek jinne yi fu ne la ñuy ruube ci àdduna kii ngeen di seetaan ni jinne bi ma nga nekk ca France ca dëkk bu ñu wax nant Nantes waaw. Euh, fi mu ne nag euh, guddi gi mi ngi xaaj parce que ñu ngi ci une pour mu xool problème la 22 muy heure de crime. waaw euh, defe naa ni yéen a ngi dégg aussi ci suuf le président de Thierno Moule Sow international Ousmane Sy Samaroussi. am Ousmane Sy Samsi Samaroussi ngeen dégg le xalifa général également. Euh, Thierno Moule Sow mu ngi noonu di wax ak Diné ba léegi waaye Diné ba léegi euh, nangu ko xool <laughs> kon Saliou ñu gis ni lii lu yéeme la. mbokk yi yéen a ngi gis loolu. <coughs> bienvenue chers internautes chers <laughs> téléspectateurs nous sommes ici au Cambérène. Au niveau du cabinet médical de Thierno Moulé Sow, euh, le khalife la médecine traditionnelle, traditionnelle, il est actuellement une heure de 24 minutes et le maréchal est en train de travailler avec euh, deux esprits, à la fois. Donc, une femme possédée par un esprit depuis Nantes est en train vraiment d'être euh, donc soignée par le khalife des djinns qui est en train de parler avec l'esprit et avec Ousmane Samsi Samouroussi qui est le président de l'association Darulahi International. nationale, donc depuis Paris. Et là, donc la femme possédée est au niveau de Nantes. Le maréchal est en train de travailler avec, euh, euh sur le cas. Et actuellement, nous sommes ici au niveau du cabinet. Nous avons aussi un, homme qui est là, donc une autre personne qui est possédée par un djinn. Donc le maréchal travaille donc sur deux niveaux, donc quelque Sama chose euh, d'incroyable que ici avec nous. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, we are in the, the house of Chanamulai, so the Halif General of the Jinns, the king of all the kings, in Camberen near the VDN Sri, <laughs> you know, in front of the football ground of Jamono. And then you see that the Marshal is working with two Jinns, with two spirits. Uh, one of the spirits is just, uh, you know, in you know France, in Nantes. It is a lady who is just, uh, oh, wow. you know, being possessed by a Jinn. And then, you know, the Marshal is working on this very case with Usman Samsi Samurusi, the president of the association, International Association Darulahi. Then you see the Marshal is working there and working uh, again with this very case because we're having a man here who is being possessed by agents. So the Marshal is working on two sides. This is something really wonderful. That's what you're living right now with us, you know, on this very Monday, you know, on this very Tuesday, I want to say, in the Khalif General's house. You know, thanks following us, thanks every time. So keep following us and you will see what de 26. allo Ousmane. ngeen ñuy suivre. jamono. allo Ousmane. kon nga ba léegi boobu xool. le khalife général. the king of the king le roi jinne bi jinne bi ñemewu xool nangu ma xool. soo mooy wax ba léegi. ñu ànd ak Kara ci. waaye léegi est-ce que du ma ko bàyyi mu ba boobu kiiwaatee ñu ñu sonal ko Kara le grand caméraman moom la ñu àndal ci caméra bi ba léegi il fait une heure passée ah 26 minutes fi ci Cambérène un terrain jamono <laughs> ba léegi kenn <laughs> bi nag euh, problème bi mooy ba léegi nangul xool sëriñ bi loolu nag defe naa ni toujours mooy suñu borom moo mën a maye li ñuy faral di gis fii également ci clinique bi ginne bu fuy ñëw rek boo daanoo doo ñemee xool sëriñ bi ci bët boo ko xoolee ci bët da ngay dégg mu naan daf may lakk parce que yi daf may lakk Thierno Moule Sow le mm. king of the king mm. le roi médecine traditionnelle du monde le mort vivant le xalif général mm. kon ngeen dégg xalif bi fi ne nii mooy commenté moo ñuy commenté mbir mi noonu en direct nga xam ni moo jàkkaarloog vidéo bi ak Guinée bi nga xam ni moo nekk ba France nekk ca nant xanaa di profité ci occasion bi di nuyu yeneen taalibe yi nga xam ni ñoo nekk ca France nekk ba Toulouse nekk ba Bordeaux nekk ba Saint-Étienne nekk ba Lyon ba ba Marseille nekk ba Brest nekk ba Strasbourg nga xam ni. Strasbourg mi ngi nekk diggante frontière ak Allemagne ak France euh, ba Lens ba waa Nîmes hmm, waa Brest ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu foofu nga xam ni euh, région yooyu yëpp euh, le xalifa général am na fa ay taalibe di nuyu aussi waa États-Unis mhm. gis ngeen bërki démb Adama Cissé mi ngi woon fii nee na mën na xool Ousmane Samsi Samarouge waaye mënul xool la xalif général di jinne loolu nag moom defe naa ni bi mooy wax noonu na euh, mën na xool Ousmane waaye mënuma xool defe ni loolu loolu loolu du lu bees ci macha allah kër xalif parce que bés bu ne gis ci clinique bi man Ousmane nag taalibe la ab ndongo la mm. ndongo la xasuwaay la ay mën nga ko xool rek la xalif général moom mënoo problème bi mooy pour ñu xool la xalif général c'est tout à fait <laughs> loolu nag nekk na lu ah, yéeme loolu nekk na lu doy waar. <laughs> ko yàlla suñu boroom rek moo mën a. maye loolu suñu boroom la allahu ndeysaan. Mm. bokk yi gis ngeen. moom defe naa ni mu ngi noonu nee na mun na xool Ousmane. sant lu doy waar waaye munuma xool <clears throat> ngeen ñi seetaan ci bu mag bi TMS TV nga xam ni ñoom. mooy feeñal lépp moo ngi Nantes man maa ngi fii Dakar. lépp lu nëbbu. Cambérène ah. dafa am lu nekk fan. mu ne dafa am lu nekk fan. mbokk yi ba léegi. dee ak naan xool dégg nee na am na lu mu jot a wax nee na dafa am lu nekk xaw ma fan. dafa am lu nekk fan wax. dafa am lu nekk fan. dafa am lu nekk fan. fii fan. dégg ngeen jinne bi nee nee na daa am lu nekk xawma fan waaye moo tax mu xool la xalif général. fan. dégg ngeen ci suuf noonu mi ngi tudd turu sëriñ bi naan Thierno Moulay. dégg ngeen mi ngi naan Thierno Moulay. nee na du Thierno Moulay kàlla. <laughs> yéen a ngi dégg coow li noonu ci suuf depuis nant France di yéeme na depuis nant ca France. nant di ville bu ñuy wax euh, am na ci stade boo xam ni seen stade bi mi ngi tudd stade la Beaujoire defe naa ni ku dem ba nant xam nga stade boobu stade de la Beaujoire de nant ñu ngi nuyu bépp euh, africain bu nekk foofu rawatina suñu mbokku sénégalais yi nekk foofu ñu ngi leen di ziar. kon nag yéen a ngi seetaan TMS TV di tele bi nga xam ni mooy feeñal lépp lu nëbbu ba léegi ñu ngi ci une heure passée de trente une minutes deux heures moins léegi mu jot deux heures moins vingt neuf minutes fii ci Cambérène 1 di terrain jamono ci clinique euh, le xalif général. le roi médecine du monde di Thierno Moulé Sow le xalif des xalifs le roi des rois the king of the king di Alaaji Thierno Moulé Sow nii nag lañu lépp loo xam ni nekk na actualité. nga ne yow la kan. fii ci Sénégal yow la jinne ban jinne jàng dindil max bi dindil ko max bi. jëlal ko max bi foo jógee foo jógee xool leen jinne boobu fan ga jógee hé foo jógee foo jógee ah kees nga jógee noo tudd noo tudd yaama ah yaama yaama nga tudd lu tax nga topp xale bu góor bi bu mu nekkee ko topp. mu nekkee xale nga ko topp. lu tax nga topp ko. hee lu tax nga topp ko. xàppee moo jinne yeewal leen ma ko suma jinne yi yeewal leen ma ko yeewal leen ma ko yeewal leen jinne yi leen ma ko jinne yi xàppee nangee moo. xàppee moo nangee moo. mbokk yi ana jinne bi ma tuddewoon Ousmane Sam si sama ruusi jinne bi ma tuddewoon Ousmane Sam si sama ruusi jinna xàppu ma nangu ma jinna yeewal ma ko jinna xàppu nangu ma yeewal ma ko ma ko sam si sama rus jinne bi ma tudde woon Ousmane ana Ousmane sa turandoo bi laay liggéeyloo sa turandoo bi sa turandoo jinne bi ma jàppoon barki démb ci jinne Fuuta yi sam si sama rus yi jenna haɓɓumo jenna ousmane samsi samo ruusi ousmane samsi samo ruusi jenna haɓɓumo jenna nangumo haɓɓumo nangumo atake a procé a procé ousmane samsi samo ruusi jenna atake a procé a procé a procé a procé jenna jenna hot hot ousmane samsi samo ruusi jenna hot hot jenna hot ko hot ko ousmane samsi samo ruusi jenna hot hot hot hot hot jenna hot hot hot hot xoj xoj xoj xoj Ousmane Sam si sama ruusi jinna xoj xoj xoj xoj Ousmane Sam si sama ruusi Ousmane Sam si sama ruusi jinna xoj xoj xoj Ousmane Sam si sama ruusi Ousmane Sam si sama ruusi jinna xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj Ousmane Sam si sama ruusi mbokk yi jinne boobu laa tuddee woon Ousmane Sam si sama ruusi ana jinne bi ma tuddee Faama Sow Faama Sow mu le Faama Sow mu le jinna Faama Sow Faama Sow Faama Sow Faama Sow Faama Sow jinna xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj suñu borom moo mun a maye xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj ana Mamadou Aliou Sow Adama Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé borom baaful bi Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow mam yàlla yaa mën a maye Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow xoj Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé ba borom baaful bi ana ana kii ana Adama Adama Adama Cissé Moulé jina Adama Cissé Moulé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Moulé xoj Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Moulé Adama Cissé xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj ana jinne bu ma tuddee woon Alseeni Alseeni Alseeni Alseeni Silla Moulé Alseeni jinne bu ma tuddee woon Alseeni anam Alseeni xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj alseeni alseeni si laa mu ne xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj n'est-ce pas tuddee woon naa la jinne ah ana yaan ma mule ana yaan ma mule jinne xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj ana TMS TV mule jinne TMS TV TMS TV TMS TV jinne TMS xoj TMS TMS TMS TV TMS TV mu le TMS xoj xoj TMS TV mu le TMS TMS TMS xoj TMS dafa soxor de TMS TV TMS TV TMS dafa soxor TMS TV TMS TMS TMS TV TMS TV xoj xoj TMS TV mu le TMS TV mu le TMS TMS TMS TMS. Hey Prince. ana boos prince mu le boos prince boos boos boos boos prince mu le boos boos boos prince mu le boos boos prince mu le prince mu le boos nu muy nooyee noo tudd nga ne ah yaama ñu dolli ñu dolli ñu dolli àndut ak kenn ñu dolli ñu dolli ñu dolli ñu dolli ñu dolli ah ah ana lëg daaru lëg daaru mbay lëg daaru lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg daaru lëg daaru lëg daaru lëg daaru lëg daaru lëg daaru lëg daaru lëg daaru lëg daaru lëg daaru bu maam Adama lëg daaru lëg daaru lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg daaru lëg jaxase jaxase lëg jaxase jaxase jaxase jaxase lëg daaru bu maam Adama lëg daaru lëg daaru jaxase jaxase lëg daaru maccuɗo ceerno mule jaamu ceerno mule lëg daaru maccuɗo ceerno mule jaamu ceerno mule lëg daaru mbay lëg daaru jaxase lëg daaru lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg lëg daaru noo tudd. ah. yaama ah. yaama ah? ah? Thierno. yaama ana fuute mule fuuta mule fuuta fuuta jina fuuta mule fuuta fuuta mule fuuta fuuta mule jina fuuta fuuta kun kan kun kan kun kan fuuta mule fuuta mule fuuta mule fuuta mule fuuta mule fuuta mule fuuta mule fuuta mule njigilen soomon njigilen soomon mule njigilen soomon njigilen soomon mule jaxase njigilen soomon njigilen soomon njigilen soomon maatam Matam Moule Matam Moule Jina Matam Matam Matam Moule Matam Moule Matam Matam Moule Jina Matam Matam Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop Jina Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop Jina Pa Bouba Diop vip vap vip vap Pa Bouba Diop vip vap vip vap Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop vip vap vip vap vip vap vip vap Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop vip vap vip vap Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop Pa Bouba Diop vip vap Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass jëna xoj Sidi Lamine Niass xoj Sidi Lamine Niass xoj xoj Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass xoj xoj xoj Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass xoj xoj xoj Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass xoj xoj gis <laughs> nga ko léegi moom mu mën a xool nii sànq ñëw ma xool instant boobu jinne baa ngi woon foofu waaw mbokk yi ba léegi yéen a ngi ñu suivre sur la TMS TV di test yi nga xam ne moo feeñee lépp lu nëbb waaw ngeen gis kii Cerno waaw jinne bi mi ngi tudd Yaama jóge ba Thiès waaw ñu ngi également de l'autre côté ca nant nee na boppam day metti na boppam day metti jinne bi la hee c'est kii nee na boppam day metti xam ngeen ne jinne bi la jinne bi moo nekk ci moom mbokk yi defe naa ni li c'est du jamais vu hé nga ne yow la kan Marème waaw nee moom la Marème xam nga ne instant bi jinne bi day daw di génn. jinne bi day daw di génn xam nga ne sànq nanguwuma xool sànq ñemewuma xool mbokk jullit yi mbokk taalibe yi. nee na boppam mooy métti. sa bopp day metti nee na boppam day métti. ngeen koy nee na moom la mareem instant bi nii euh, jinne bi xaw na daw rocceeku tuuti ndax dafa sonn. léegi maram nag moo nekk ni fu mu nekk nii gis ngeen jinne bi xaw na daw xaw na rocceeku tuuti ndax sànq ñemewu woon xool ñemewoon jàkkaarloo xool ma gis nga instant bi nit kaa ngi may xool waaye ba teewul jinne bi day dugg di génn he nga ne yow la kan yow la kan yow la yaama lu tax nga topp xale bu jigéen bi xale bu góor bi lu tax nga topp kii Cerno waaw kii kii kii nii maamam da doon faj borom xam-xam la maamam dafa doon faj borom xam waaw waxal na wax moom lañ ko tuddee. maamam maamam nu mu moom nu mu tudd xale bu góor bi. xale bu góor bi nu mu tudd. ah Basiiru. maamam fajkat la woon. bu mag. fajkat bu mag maamam lan la doon faj. ay rab ak lan. ah. ku dof. aha borom xam-xam la woon. borom xam-xam la woon. nga topp. lu tax nga topp seet bi. Casamance lu tax nga dugg ko. xale bi xale bi yàqal lu bëri. tax nga dugg ko. waaw. Casamance nga ko duggee. moo am 12 ans. ba muy am 12 ans. lu tax nga topp ko. ah. maamam. maamam na maamam lu tax nga topp ko nga ne. ma waaw maamam bu nekkee borom xam-xam lu tax nga topp ko lu tax toppoo maamam nga topp ko moom lu tax nga topp seet bi yow jigéen nga yow noo mel ban melukaan nga yor melukaanu jaan ñaata at nga am hee ñaata at nga am ah de cent mbokk julliti mbokku taalibe yi ñoo ngi fii ci kër xalif général des jinne Thierno Moule Sow le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde boo koy gis ngeen jinne bi nee na xale bi ba mu amee 12 ans la ko topp xale bu góor bi nee na maamam fajkatu rab la woon fajkatu jinne xam nga ñoom mag ñi njëkk yi ak léegi bokkul de ñun dañoo préparer lépp kale bu ñu amee suñu njaboot macha allah dañ leen di préparer. pour en ëllëg bu ñu fi nekkul ñoom ñu mën a jël releve yi mais mag yi njëkk ya ñoom macha allah euh, xel yi ñu am léegi ak ñoom xel yi ñu amoon yi bokkul ñoom dañ daan liggéey rek du ñu sooraale ëllëg njaboot gi ak yooyu ñun nag dañuy sooraale njaboot gi sooraale ëllëg ñi nga xamante ne ñoo ñuy donn c'est important macha allah même boo fi jógee sa njaboot yi dañuy ñëw continuer liggéey bi fekk du am benn problème mais bu dee yow dangay faj ay jinne doo jàpp jinne yi doo leen tuubal da ngay faj noonu fulkan rek dem mun nañ ñëwaat duggaat sa njaboot yi waaye nag man damay tuubal ay jinne dugal leen ci lislaam ñu doon samay taalibe ma tënk leen fii sama biir kër ñu may liggéeyal doon samay baay faal doon samay yaay faal doon ay no ndongo laxasuwaay di ma liggéeyal saa su ne macha allah moo waral ma utee ak mag ñu njëkk ya mag ñu njëkk ya dañuy génne jinne bi rek jinne bi dem duñ ko tuubal duñ ko def dara dañ lay jox garab rek jinne bi fulkaan dem yoonam mun na nag defaat retour xam nga ale boo gis am na retour mun na defaat retu dugg ci njaboot gi ruube mbokk jullit defe naa ni fi mu wax nii la ko jinne bi duggee bi mu amee 12 ans muy Casamance foofu aussi defe naa nii waaw jinne xale bi ba muy am 12 ans nga ko dugg côté gauche waaw côté goosam bi nga dugg ba mu amee 12 ans waaw xale bi borom xam-xam la borom xam ko yàqal lu bari nee na xale bi boroom xam-xam la daf ko yàqal lu bari léegi yow lan mooy sa problème ak xale bu góor bi danga koo bëgg xale bu góor bi am na ku mu àndal wala àndul ak kenn moom kese moo ñëw wala dafa am ku mu àndal ah àndul ak kenn xam nga moo tax du ñu bëgg du ñu bëgg benn nit di ñëw parce que lii la ñuy bañ bu nit ki ñëwee fii daanu bu fi ñëwee daanu lii la bañ moo tax duñu ñu bëgg benn nit di ñëw parce que bu benee xam su benn nit ñëwee day compliqué dèjà moom ñëw na daanu na àndul ak kenn xam nga loolu day xaw a compliqué. naa ne loolu aussi jar nañu leeral ñi nga xam ni ñi ngi seetaan TMS TV que fii ci clinique bi kër xalif général ku fiy ñëw. waaw war nga lu mu gàtt gàtt ànd ak koo xam ni mooy ànd ak yow. benn accompagnant. waaw waxal xale bi day seetaan say vidéo waaw ba capturer la si portable chaque jour YouTube bi da lay seetaan guddi gi. bu la seetaanee rek am jàmm. bañ na ba. bu ma ko sa jinne bi moo yëngu sa jinne bi nekk ci yow moo yëngu depuis sànq moo ngi ruube ñemewuma xool. yaa ngi dégg. jinne bu nekk ci yow moo yëngu depuis sànq ñemewuma xool sa jinne bi. d'accord. yes. sa jinne bi moom moo yëngu depuis sànq mënu ñemewoo ma xool Thierno génne ma gis nga ko jinne baa ngi fi instant bi moo ngi yow nii sax pour mu xool ma bu baax sax problème la gis nga ko pour mu xool ko gis ko mu xool ma nga mu xool ma sax gis nga commencé na def ay manière am gis nga jinne baa ngi moom day daw di génn gis nga ko gis nga ko nii day daw di nga instant bi jinne baa ngi ci moom mais day daw di génn gis nga waaw parce que parce que instant bi instant bi jinne baa ngi ci yow jinne baa ngi ci yow fu mu nekk noonu ca Nantes waaw nga ne lan yow loo wax loo wax waaw ci nekk waaw da waaw bu la seetaanee am jàmm. waaw dama ko sonal nag yàqal naa ko lu bëri. kii waroon na weesu li mu nekk. yàqal naa ko lu bëri. yàqal nga ko lu bari lu bëri. dama ko topp bu nekkee xale ba léegi. waaw douze ans. xale bi fu ne dem na ko faju fu ne dem na fa faju fu comme fan ak fan. dem na ci fu ne ci Thiès ci ay pas séeréer. mais mu ñu ko faj. damay dama koy nax bu ma bu bu fajoo ma ñëwaat. xale bi boobu seetaan sa vidéo ne fii lay ñëw. ne fii lay ñëw. ne fii lay bu bëggee ñëw ma gàllankoor. saa bu bëggee ñëw nga gàllankoor. ma gàllankoor ko. ah. saa yu bëggee ñëw ma gàllankoor ko. nee na saa yu bëggee ñëw mu gàllankoor ko. waaye bii. boo gisee ñëw bi yomb. waaw dalaa woo jot la. waaw nga wax ak moom. waaw ma la day ñëw. Mhm. ma xam ni mënatuma ci dara. nga xam ne mënatoo ci dara. boobu dalaa jot dalaa woo jot la. waaw waaye ñi mu doon yëpp ñeneen la doon jot bi mu la jotee ma xam ne mënul ma day bi day ñëw xale bi day ñëw day jinne baa ngi dox ci xol bi c'est normal instant bi jinne baa ngi yëngu foofu ca Nantes. Thierno waaw. xale bi côté góosam laa bi côté góosam nga ne. dégg nga mu ne xale bi ci côté góosam la nekk. mbokk yi ne mbokk yi gis ngeen Thierno Moulé. alors nous sommes toujours ici au niveau du ah. cabinet médical de Thierno Moulé Sow le khalife général des djinns et euh, là il travaille avec deux esprits deux djinns à la fois. donc une femme possédée depuis Nantes donc qui a un esprit qui la perturbe donc Marème Marème Sall qui n'arrivait même pas à regarder donc le khalife général des djinns parce que c'est l'esprit qui était en elle qui l'empêchait donc de le regarder en face ah, et là nous avons aussi un autre donc un autre homme euh, un homme donc qui est possédé par un euh, qui s'appelle Yama et ce cet esprit l'a suivi depuis l'âge de 12 ans. Ama soxo ama soxoma de Casamance. Ama a yow de dégg na saraxule euh, Ousmane waxal ak bi waxal ak jinne bi. qu'elle est âgée de plus de cent ans. ama <laughs> donc c'est une chose ah? incroyable qui se passe actuellement donc vous voyez. Djamoudima euh, Djiné euh, Djamoudima. l'esprit qui s'appelle Yama. ah est vraiment en de posséder. nee na jam jam depuis longtemps. Eh, il a eh, suivi eh, depuis longtemps depuis xam naa ne téeméeri saraxu la xam nañ fu mu nekk nii vous l'esprit qui a expliqué que. suma mbokk saraxu lay waaw a pu aller ah? euh, beaucoup de marabouts à Thiès mais n'a pas pu avoir gain de cause. ah takkale yooyu mais Djiné bi dégg naa la nee jam jama il capturait même les vidéos de Thierno Moulé Sow c'est pourquoi maintenant euh, le dériver euh, xale bi boroom xam-xam la yàqal nga ko lu bari loo yàqal xale bi ci jàngam waroon na sori lu ëpp fii waaw bi boroom xam-xam la boroom xam-xam la am fukki laa ko dugg Casamance Casamance nga ko duggee laa ko duggee fa la doon dem di jàng fa la demoon xale bi am xam-xam. ma yàqal ko lu bëri. nga yàqal ko lu bari addunaam ci lu bëri. war naa mhm. xale bi wërsëg wërsëg bu bari la yor. wërsëg bu bëri la yor. dafa borom wërsëg la. borom ko ko. xañ naa ko lu bëri. te tamit it yàqal ko di ko côté gauche am nga nekk. di ko sonal mhm. yàqal ko sax. yàqal ko démarche nu muy doxee yàqal naa ko ko. Thierno. waaw côté goos bi. côté goos bi nekk ay jamono damay dama koy tëf tëf ci fit bi xale bi du tëddee guddi du nelaw guddi lu bari lu bëri. du guddi lu bëri. may tàngaloo xolam muy mer. ngay tàngaloo xolam muy mer. di mer gaaw a mer. Thierno Thierno. léegi yow. yow daal da dugg xale bi daal yàqal ko. yàqal ko wërsëgam yàqal ko léppam. waaw ko bëggoon. da nga koo bëggoon. dama ko bëgg. xale bi danga nga koo bëgg. mbokk yi yéen a ngi gis jinne bi xale bu góor bi la dugg yàq aveniram am vraiment gis ngeen ko dugg na xale bu góor bi yàq laayfam yàq avenir am nee daf koo bëgg di ko indil ay kurtu carte gis ngeen. lu yéeme la nee na xale bu góor bi boroom xam-xam la am na lu ko yàlla may waaye gis ngeen yàq na yàq na avenir am nee na moo ngi ci benn wet gi fala la toog farankulaay macha allah jërëjëf sukran jërëjëf nee na gis ngeen nee na <coughs> mbokk yi nee na moo ngi ci wetu góosa ah nee moo ngi ci góos bi moom professeur la xale bu góor bi professeur la aha dafa baax nag ñu xam kon nag gis ngeen kii tëdd nii professeur de lan la mathématique wala lan. est-ce ah def na anglais. professeur de anglais ah ndee la mbokk yi gis nga jinne yi ñëpp lañuy dugg kii professeur la anglais defe naa ne kii xam naa ne mbokk saaliw la ah. Hmm. professeur anglais moo tëdd nii waaye jinne bi moo koy ruube. ba mu amee lance de douze ans la ko dugg ki tëdd nii ca Casamance la ko dugg la ko duggee professeur anglais moo tëdd nii waaye instant bi du professeur bi instant bi professeur jinne moo nekk nii professeur anglais bi moom instant bi moo ngi nelaw waaye jinne bi dugg ci moom actuellement mooy professeur waaw ah xale bi dama ko déggloo bi dafa dégg anglais yow dégg nga anglais jinne What's your name? I can speak English very nice ah, without uh, any problem. Saliou lakkal ak jinne bi anglais. am I'm here. What's your name? Yama. Your name is? Yama. We can speak English every moment that we want, you want. Okay, so why do you follow this very boy? Because I love him. You love him? I love him since a long time that when he's a buddy. Okay, when have you been following him? Uh, uh, you know. me, I was with him when, when he was a young boy mm -hmm. in Casamance, and I entered his body in left, in the side of the left. Okay, on the left side. On the left side, and now it stays there. Okay. But now I want to be out. Uh, you want to be out. I want to be out now. Yeah, and, to, again, and to stay here with Chanamula and to let the boys. Okay, you want to stay with Chanamula and work with stay him. here. Okay. To work for him. Okay. And to let the the boy go raise in and to do what he want to do. Okay. What did you do to the boy? What did you destroy for him? Oh, many things in his studies. And the boys can be a journey and he have many knowledge. Many knowledge, but, but you knowledge destroyed all. In and in every moment that I I do something that he's not able to do what he want to do. Okay. Oh now I want to let him down mm. and, and let him in and I do you have to stay here mm -hmm. with Chanamule okay. and, and, work for Chanamule okay. and do whole Chanamule one okay. and let the boy be at peace with his family. That's it and for sure. He's married and have a wife and his family. So the, so, so the boy is not married yet. He's married and have three. I, uh, ah, ah, he has three children. children. Okay, good. But me, I don't do anything to his family. Mm. That the mm. boy that I love. Mm. Now I want to stay here Okay. I want to stay here with Chano. That's it. And work with. But the boys, because of me, the boys speak English very nice. Yeah, I see. So why do you want to stay with, with Chano Muleso now? Because now, you know, I want to work Fochano. Uh-huh. I know how to work Fochano. Okay. Many people think that Du Bois is born in U.S. because the man is of speaking English, but Du Bois is born here. Yeah, I say that he has a good and then accent. Everybody, oh. And then everybody, sometimes when the boy speak English, and then everybody said, his boy is not born in Senegal. His okay. boy is born Mm-hmm. in Senegal, not me who speaking English very well. Okay, I see. Where the boy has been learning then? And the boy? Where, where, where has he been learning? And these this boy. Yeah, where has he been learning? Oh, in Senegal, in here, here, in Senegal, in ah, China. okay. In, he has in, never gone abroad. No, no, and the boy is here, in here in Senegal. Okay, but and the accent is good. Sometimes I, I, can speak, and American people come here. Okay. And when the boy is speaking, they was very, very, very. They say it's not impossible. This boy speak English of this manner. Okay, I see. It's so what what, with, with what kind of degree did the boy has? Did the boy, boy have, yeah. degree, this degree, and the boy must have his master, but me, I destroyed all. Oh yeah, right. And the boy so you very, prevented him from having his master. clever. Okay. He's very clever, and many people think that the boy he's living in England. So the, boy, the boy is uh, teaching right now, or? The boy is teaching very well, and he's teaching, and the boy can speak many language. He can mm. speak English, Espanol, That's he can cool. speak Spanish. Okay. The boy can speak English. Uh-huh. And the boy can speak sometimes Spanish. Okay, I see. Oh. That's cool. But then. now, what, what I want that to stay here with Channel and work for Channel. So now you want to stay here then? Yeah, no, and I want to let the boy away okay. and go away, and I want to stay with Channel. Okay, so Channel, Channel will be then making out. you out? Now, Channel, get me out. It's time to stay with you. And you say that your name is Yama? Yama. How old are you again? How old are you? How old are you? 100 years. 100 years? Yes. So why do you love the why do you love the boy since you are because 100 years old? I told that his grandfather uh, was Oh yeah, so his what, grandfather was working with with yes. spirits. I okay. want to stay here. Okay. No. Is that only you remaining in her body, in his body? Is that only you? Uh, is it only you remaining in his body? No. No, Is there any other spirit in his body, in this very boy body? No, I don't think so. But I think that me, I stay there. That's only you. Yeah, I stay. So there. now you want to get out? I want to get out and okay. stay here. So we're gonna talk with Cherno whether he will make it out or not. People say that the boy who is born in U.S. now, the boy is born here. Okay. And the boy, when the boy was teaching, his teacher was very incapable of the manner of speaking. English. He's teaching in public school or private school? in public, oh, in yeah, public yeah. school, and many people sometimes say me speak English, and I hear that me who do him speak English very well. Okay, yeah, I well. see. American people came here, okay, and they were very, very, very, very happy to see that the boy speak English very well. Good, that's cool. Well. So we're gonna now talk with Charno and see and whether he will out make out. I will, I will work for you mm will do whatever he wants. What can you do you exactly? What can you, do? Which kind of job can you do? Or channel, you uh-huh. Nee na unis mën na dem problem. na toog liggéey ak yow daal. dafa bëgg a génn foo ko mënta yónni mu dem boo ko yónnee États-Unis mu dem rapidement. loolu daal la bëgg.

ok anyway xam naa Okay, that's it. I want to get out now. It's high time. It's high out. time that you got out. It, uh, it's high time. Okay, I, anyway. I do 25 years in this body now. 25 years in his body? Wow. Oh, that's great. How long? nee na def na 25 ans ci kooram. ñaar fukki at ak juróom baa ci xale bu góor bi. it's now it's it's time now. now so let's see. so we're gonna work with Chano we're gonna talk with him. Uh, we're gonna see whether he will make you out or not. you wanna stay here then. okay do you have any children with a boy any kids. no uh, I don't have any problem with the jinn. Uh, no, no, I say you, the jinn, the spirit, exactly. Do you have any kid with this very young boy? You don't have any kid with him. No. But you, do you have kids in your life? You ah, yeah, are the spirit. But gone. away. Okay, that's it. Okay donc Moustapha dégg nañ ko nee na dafa bëgg a génn vraiment def na ñaar fukki at ak juróom ci yaramu xale bu góor bi. mu ngi ci côté gauche bi donc moom moo tax xale bu góor bi di làkkee anglais nii parce que moom moo koy jox xam-xam boobu nee na donc mu ngi liggéey jàngale cees ci école publique bi américains yi sax bu ñu fi ñëwee dañu kontaan ci ni muy làkkee anglais parce que jinne bi moo koy jox xam-xam boobu di ko jox accent boobu nee na léegi rek dafa bëgg génn toog fii donc liggéeyal Thierno léegi fu ko Thierno mën a ni mu dem bu amee sax ku bëgg a làkk ak moom anglais mën na ko woo moom mu mu làkk. alors donc chers internautes chers téléspectateurs donc vous voyez ce jeune homme qui est possédé par un esprit par un djinn qui s'appelle Yama Yama donc qui est âgé de plus de cent ans et qui suit ce jeune homme depuis l'âge de douze ans donc euh, Yama l'esprit vient de révéler donc qu'elle a eu à faire vingt-cinq bonnes années donc dans le corps de ce vraiment à sortir et à travaillé donc pour Thierno Moulay Sow parce que vraiment elle est vraiment décidée à laisser le jeune homme vivre tranquillement donc elle est prête aussi à être envoyée à être donc euh, donc une disciple de Thierno Moule tout vraiment ce qu'il veut. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very young boy who is uh, just being possessed by a jinn whose name is uh, Yama. Yama, is just uh, years old and then she has been following this boy since, he was a very young boy, since he was 12 very jinn boy for 25 years old. is ready to get out, she's ready to get out and stay here, work for Channel Mulaiso and do whatever Channel Mulaiso would like him to do or would like her to do. And she's even able to talk with persons that are coming, persons that are speaking English. So you see then this very accent of this very boy is so nice, so beautiful because that's the gene, that's the spirit giving him this kind of accent. So thanks for following us on Temis TV. We are here in the house of Channel Mulaiso. You will be seeing this kind of actions, incredible. Genes speaking English, spirits speaking English. That's That's really incredible, just really unbelievable. Donc vous voyez des esprits qui parlent anglais, c'est quelque chose d'incroyable. Donc avec le Khalif général des djinns, donc l'esprit qui oblige, donc qui pousse vraiment ce jeune à parler un très bon anglais. Moustapha, je pense que vous pourrez commenter un peu en wolof. macha allah Saliou defe naa ni li nga wax am bi mi ngi wax anglais améri américain bu ñëw fii Sénégal macha allah donc euh, comme ni ko Saliou commenté jinne bi dugg na ci moom depuis vingt cinq ans bi mu amee douze ans la dugg ci moom do dëkk bi mu ko duggee nag muy Casamance defe naa ni foofu aussi euh, bëri na ay jinne parce que fan yi rek bu ngeen xoolee am na suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi jóge ba Kataba un Kataba deux te gis nañ fi dañ fi faral di am ay patients yu bëree bari yuy jóge ba Sédhiou yuy jóge ba Ziguinchor ba booru Casamance kon defe naa ni côté boobu aussi Guinée yi sonal nañ leen lool lool kon ngeen gis ni Guinée nekk na loo xam ni lu doy waar a waar a la muy Guinée bi ko dugg tudd Guinée yaama euh, moom nag nee na maamam fajkatu euh, jinne ak rab ak ay dof kon ngeen gis ni euh, liggéey ak jinne yombul il faut nga am xam-xam bi waaye loolu rek du doy parce am na ñu bëree bari bu ñu ci duggee euh, boo gisee du ñu ñemee faj mbirum jinne dañuy ragal mu retourner seen kaw wala mu retourner ci seen njaboot waaye am na ñoo xam ni ñoom defe naa ni yàlla may na leen loo xam ni dañuy affronter jinne yi di leen duma di leen tuubaloo di leen di leen teg seen wet ñu leen di liggéeyal comme le xalifa général di Thierno Moule Sow kon sëriñ bi ñu ngi lay ziyaaraat di la jox sa wàccuwaay. waaw jërëjëf Moustapha Fall macha allah jërëjëf Saliou jëre ngeen jëf euh, macha allah mbokk yi ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo man moom damaa jommi ndax jinne bi gis nga nu muy làkkee anglais dafa mel ni américain bu taxaw nu mu koy làkk ak nu mu koy làkkee ak waane bi moo tax maa ngi rey rek macha allah. kon nag gis ngeen lu jinne bi wax saaliw nee na ko pare na pour liggéeyal ma pare na pour génn xale bu góor bi pare na pour toog fii pare na sax bu nit ñëwee fii di làkk anglais ma woo ko mu. mu mu traduire ma ma ne ko xanaa da nga bëgg a jël palaasu Saliou Samb mbokk yi nag kon gis ngeen ne lii lu yéeme la moom xale bu góor bi professeur anglais la tey nag moom moo tëdd fii jinne bi nga xamante ne topp na ko plus de vingt cinq ans ndeysaan di ko yàqal di ko indil ay jafe-jafe xale bu góor bi papam papam walla maamam boroom xam-xam la woon daan na faj ay jinne daan na faj ay dof waaye gis nga tey <clears throat> jinne moo ko dugg tey mu ñëw fii ci kër xalif général des jinne kër mu Moule Sow le king of the king le roi médecine traditionnelle di monde xam nga ne loolu la yàlla dogal mbokk yi gis ngeen ko professeur anglais moo tëdd nii tey jinne bi di ko ruube macha allah mu ñëw ci kër kan kër le bourreau di dëmm le roi médecine traditionnelle kon nag macha allah mbir maa ngi noonu defe naa ne kii. tey bu ko élève am yi gisee bu ko collègue yi gisee dinañ ndeysaan dinañ xam ne kon Guinée lu am la parce que en général ñoom ñii ñi ciy gëm yi bariwul ñi ci gëm yi bariwul mais bu ko collègue yi gisee wala ay élèves yu muy jàngal dañuy xam ne ah ndekete kii lii lu am la parce que moom moo ngi jóge ba kees macha allah léegi nag man lu ma ci jaaxal moom kese moo ñëw léegi problème bi sant bi jinne la waxal munuñu du ñu wax ak nit pour faj bi problème bi loolu la maanaam addiye bi loolu mooy problème bi moo tax du may bëgg benn nit di ñëw damay bëgg saa su ne sooy ñëw nga am ku gunge pour en mais yow kese boo ñëwee fii boo fi daanoo tamit nii rek lay demee maanaam jinne bi lañuy waxal du ñu mën a wax ak nit ki léegi na loolu mooy problème bi léegi jinne léegi xale bu góor bi moom nan la may faye hmm. fay nga ne bu ma ko génnee lan ah boo ko laajee dina la fay mbaar du ko génnee mu may làkk ay ay anglais ah, loolu tamit ah génne ko dina la fay bu ma génnee dina ma fay ah génne ko fii tamit mu naan ma ay nangam nangam ah boo gisee xale bi ñëw kenn ah dafa yàgg bëgg a ànd ak ay nit may gàllankoor yoonam. ah ngay gàllankoor yoonam. lim la moo tax mu ñëw. dama ko doon tere mu ñëw ci yow. da ko doon tere. moo tax moom kese. xam nga fan yii man maa yor téléphone boobu noonu. chaque jour ku mu bëgg a àndal mu gàllankoor. Mhm. mais lim mhm. ñëw bi jëm naa gàllankoor waaye mënuma ci dara. Mhm. dina la fay génne ma. mbokk yi dégg ngeen lu jinne bi wax. dégg naa sëriñ bi li nga wax aussi am na solo <clears throat> pour suñu mbokku internet yi ak suñu mbokku téléspectateurs yi ak bépp patient buy ñëw fii booy ñëw. war nga am su ngeen dàllee Angleterre la jóge booy ñëw war nga Faa Bakary. ko booy ñëw war nga am. koo Faa mm-hmm. Bakary Sonko. Faa Bakary Sonko. moo ma yónnee quinze paires daal. macha allah gis nga daal lii ci la bokk daal lii Angleterre la jóge suma ma bu baax boobu Faa Bakari nee na ba ma yónnee daal yi gars yi dañ ko yokkalaat salaire dañ ko yokkalaat defe naa ñu ngi ko doon commenté fii sax fan yi ba ma yónnee daal yi ma kontaan ci rek salaire am dañ koo yokkaat macha allah am na beneen colis bu mu yónneewaat sax moom ci yoon bi xam naa dina ñëw mm. mais en même temps même journaliste yi indil na yónnee na leen ay puuf mm. pour ngeen di mën a toog comme bu ma toogee ni ngeen di mën a toog mm. kon macha allah moom it ci daaru la nekk ci association Thierno Moule Sow Family International taalibe yi dañoo dëggu quinze paires daal la ma yónnee macha allah fi naa loolu am na solo waaw quinze paires daal la xam naa yeneen paires ngi ñëwaat macha allah yéen ñëpp dina leen may ay dàll incha allah incha allah waaw mbokk yi loolu am na solo gis nga dàll yi dafa rafet mm. macha allah jëlal dàll yi mm. kara macha allah Angleterre la jóge fan yi moom daal yi daal dama bëri ay dàll de. Mm-hmm. damay sol sol <laughs> Angleterre la jóge mbokk yi mm-hmm. macha allah daal yi dafa rafet ah. lii yëpp ci TMS TV. ak ci Thierno Moule Sow waaw loolu la ndeysaan. Mm-hmm. taalibe bi dafa ma dajaleel ay daal yu bari yónnee ma ko waaye ba ma ko yónnee ma jot ci dàll yi. salaire ñu yokkal ko fu muy liggéey gaa yi yokkal ko salaire am <laughs> kon defe naa ni taalibe bi taalibe bu dëggu la. bu dëggu la. kon sëriñ bi defe naa ni war nga gën a gën a yokk ñaan. waaw te gaa yaa ngi indi ay ceeb ak addiya. Hmm. ñëpp ñu képp ku fi indi dara. Hmm. yàlla na yàlla ful ko yàlla hmm. yàlla yokk ko. gis nañ fi sa benn taalibe bu fi ñëw démb jógee ba kaw Kaolack mu yar ak teggin moom it. yar ak teggin Baye Cheikh. gis nañ ko fi démb gis nañ ko fi tey waaw yar ak teggin ndeysaan moom it taalibe bu dëggu la. waaw moom am na fi ma jaar ak moom. gis ko fi muy indi teraanga yu solo. moo tax moom it muy góorgóorlu vraiment di indi addiya di indi teraanga di baax. xam nga ne suñu dem Kaolack bi sax moo ñu yóbbu woon Kaolack. Mhm. macha allah ñu dem Kaolack vraiment jàpp ay jinne yu bëri tuubal leen indi leen fii. Mhm. moom it boobu ba tey moo ngi jéem a def teraanga. macha allah boobu ba léegi bàyyiwul de. Cheikh Baye bu Kaolack yar ak teggin. Mhm. ñoo ngi lay nuyu di la ñaanal di nuyu waa Kaolack yëpp waa Medina Baye ah. ñoo ngi nuyu ñëpp kilifa diine yëpp waa Touba. waa Tiwaawoon Njaasaan macha allah suñu mbokk chrétien yi ñu ngi nuyu ñëpp ak nekk également ñu ngi nuyu. suñu mbokk laayeen yi suñu mbokk laayeen nga xam ni dëkkandoo yi suñu dëkkandoo lañ. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ziar euh, xalifa bi macha allah Baay Abdoulaye Thiaw Laay. macha allah yal yàlla guddal ay fanam. amiin di nuyu ñëpp ah. Mm. kilifa diine yëpp macha allah. même suñu mbokk ibaadu yi. ñu ngi leen di nuyu. <laughs> di nuyu aussi sa xarit Baye Seyni Baye Seyni caw waaw waaw waaw waaw siini bàyyi mm-hmm. siini ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax mm-hmm. macha allah mm-hmm. léegi nag mbokk yi lan ngeen wax fii ba léegi ngeen dégg jinne bi nee na na ko sëriñ bi génne jinne bi nag mi ngi tudd jinne yaama mi ngi dugg ci waa ji di Basiru bi mu amee 12 ans fële ca Casamance Euh, la la ko dugg waaye dégg ngeen mu wax sànq que ni maamam fajkatu jinne bu mag la woon ak ay rab ak ay dof kon ngeen gis ni euh, jinne nekk na loo xam ni yàgg na ci kaw suuf yàgg nañ lëmbe bu ngeen xoolee même ci alxuraan am na sóorutul jinne ngeen gis ni jinne yi dañ daan dem ba ci kaw asamaan bi di déglu yàlla suñu borom di wàcc ci kaw suuf di ko wasaare ci askan bi taxoon yàlla suñu borom aussi wàcce yonentu yàlla Suleymaan muy jëflanteeg jinne yi kon defe naa ni jinne yi tey ñooy ruube fépp ñooy ruube ci kër yi ñooy ruube ci entreprise yi ñooy ruube ci quartier yi ci circulation bi ñooy ruube parce que léeg nga gis accident bu doy waar boo xam ne dañ leen ñaar fukki nit wala fukki nit faatu nañ ci te oto bi dara jotu ko oto bi pënam tojul dara tojul jékki-jékki rek ba ci yàgg mu mel ni oto bi dañ koo yëkkati ba ci kaw rek daal di dóor ci suuf kon defe na ni loolu lépp jinne yi ñooy ruube kon ba léegi yéen a ngi ngi ànd ak kara waaw ah, fi mu ne nii nag deux heures jot na ba tegal fukki simili ak ñett ah loo mën lan mooy sa professionnel mën waaw mun naa jàngale anglais bu baax ah mun naa jàngale anglais mun nga jàng anglais mun nga jàngale anglais bu baax mboo koy jinne bi nee na mën na jàng ang mën na jàngale angale ah ak lan ceerno mën naa la de doxal yónnent foo bëgg ah yónnent yi mu ne mën naa doxal yónnent yi lan ak lan nga mën mën nañ la mën nga dem dox yónnente yi fu ñu la yónni nga dem comme lan bu ñu la yónnee France suñu taalibe yi di nga dem bu ñu la yónnee Amérique fu ñu la yónnee ci àdduna bi aha boo koy dégg bi nee na fu ma ko yónnee mu dem léegi nag ah ba léegi nee na dafa ba génn moo tax mbokk yi defe naa ni fii patient bu fi ñëw war ngeen di am ku ngeen àndal parce que loolu aussi c'est important parce que bu ngeen àndeek nit mu ñëw daanu defe naa ni loolu c'est important moo tax bërëb yu mel ni ku fiy ñëw da nga war a ànd ak un accompagnant loolu defe naa ni dafa am solo dafa am importance muy di góor di jigéen parce que bërëb boo xam ne boo fa ñëwee saa su ne man nga euh, li nga àndal mën na manifester wu nga daanu kon defe naa ni di ànd ak euh, accompagnant saa su ne ngeen dégg sëriñ bi di ko wax ci euh, la TMS bi kon nit ñi defe naa ni war nañ ci bàyyi xel loolu kon ba léegi Kara yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV deux heures passées de presque quinze minutes deux heures et quart ci guddi moo jot ngeen ñuy suivre fii ci euh, Cambérène un ci terrain wetu terrain jamono ñu nekk en face géej gi ngeen ñuy suivre su la TMS bi di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu euh, TMS TV nag saa su nii la mi ngi ci. mbiru sëriñ bi mais mi ngi ci également mbiru actualité euh, di leen couvriral lépp loo xam ni euh, moo moo moo moo moo nëbbu woon euh, TMS TV da koy feeñal ba mu leen nañ kon sëriñ bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay te dal delloowaat kàddu gi